ñaata conseil la ñu war a fal ci département bu nekk ci réew mi ñaata conseil ci commune bu nekk ak siège nan la ñu war a tëddee l'observateur ne nañu njiit réew mi Macky Sall signé na décret ba yéenekaay bi xamal ñu ne bu dee ci département yi région bu Kees moo ci ëppale ak ñaari téeméeri conseil ak juróom-ñett topp ñaari téeméer ñaar fukk région bu Ndar topp ci ak ñaari téeméeri conseil bu dee ci commune yi nag Ndakaaru moo ci ëppale ay conseil municipal yu ñu war fal ndax ñoo ngi leen di xayma ci décret ba ci 3188 conseils municipaux Kees ñëw en deuxième position ak 2710 conseils Kédougou moo ci gën a néewle ak 804 libération nañu caaxaan faaxee ci local déwén yi gaa ñoo nga ca bu baax a baax ca Podor kii di Racine Sy mi ngi ci Aïssata Tall Sall mu retiré wu bàyyi ko mu dem nga dem ca Kaolack Serigne Boub Dogu Fane bu jotee ci maire bi mbooleem engagement bu mu jël dana ko respecté fii ci Ndakaaru waa kër Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef yi wanoon ginnaaw coalition Yewwi Askan Wi delluwaat nañu ca waa mouvement gëm carte coalition yeneen yi màtt na leen yëf yi bu doon jàngooro la ñu ne waa wàllu jot nañu seen wàll ci virus bi tir bi nañu firnde li moo di coalition wàllu askan wi ci tas la jëm ndax ñoom Pape Diop ña ca bokkoon di waa bokk gis-gis benn tànk la fa am léegi ba ca des ma nga ca biti jege nañu lool génn ci coalition bi fuqale ak ngàppaaral gi waa parti démocratique Sénégal bëgg a boole ci yëf yi la waa bokk gis-gis gis ne du yëfi nit ne ci ñeen fukki département ak juróom-benn yi nekk ci réew mi ñoom waa parti démocratique Sénégal li ñu bëgg moo di ngar daajoo ñeen fukk ya ak leen ñuy wax ne am nañu candidat ca mairie bu Ndakaaru làmboo gu ñoo wax ba léegi candidat ba kan la sursoi di ñu leeralal li indi bi coobeeg mbaaloo bi ak ñàkk déggoo gi ci biir coalition yeewi askan wi wax nañu it taxawu Sénégal bépp gox boo xam ne ñoo ko gañe woon fa ñu yéene bàyyi ko ak kenn xanaa ba mu des diiwaanu Yoff ak Parcelles Assainies sagata Jolof gàcca Jolof sursoi ne nañu askanoo fa suñu yéene tàggoo ak seen maire bii di Kumba Jaw am na lu mat ñeent fukki chef de village ak ñeent yu nekk ca sagata la ñu àndal moom la mu jiitewaat mairie ba te du ñoom rek ndax mbootaay jigéen ñaak ASC e ba société civile gi Kumba Jaw lañu ñu investir investiture yooyee témoigne ak journal Le Mandat xëy na di ñu xamal ne ci la coalition yu bari di nato Sud Quotidien ne leen moom kay ak lu ngeen ci mën a dégg ay investiture la yoo xam ne lu ne mën na caa xew investiture de tous les dangers li xew ci biir parti socialiste moo jaaxal wal Walf Quotidien ubbil yéenekaay bi li mu gis ci doxalinu socialiste yi moo di jikkoy àndandoo bu jaruta wóolu ci lenn ndax seenu fidélité ci benn bokk yaakaar du la ñu koy wane journal bi nañu ko ko weddi fàttaliku li woon 2014 booba ndem si yàlla Ousmane Tanor ak Aminata Mbengue Ndiaye mi jiite tey ji parti socialiste dañoo génnoon ci liste bi mouvance présidentielle bi tegoon ñu teg fi suuf waxi politique te wax ci taax yu bon yi ci dëkk bi yëral xët mu njëkk soleil national démb bi ñuy siiwal rapport bi ñu def li waral bâtiment yi dëkkee daanu ci réew mi di jur ay loraange ki musiba yu dul jeex yéenekaay bi nee nañu fala Boubacar Dañoxo dib inspecteur général du bâtiment waxee ne xayma nañu ci Sénégal lu ëpp junniy ak ñeenti téeméer yoo xam ne bu ñu ci jugul ci daanu la ñu jëm libération nañu ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn la ñu wax ne ñoo ngi fii ci réew mi te ci la ñu jëm lu jëm ci liy sooke daanu yu bari yi bâtiment yi di daanu ci réew mi libération nee nañu rapport bi wax na ne ñàkk étude yu wér tabaxin wu bon matériel yi njoogaan ak xëy-xëy bëgg a yëkkati sa bâtiment yokk ko te sóorookoon ca fondation ba yi bokk na ci liy waral taax yi dëkkee nërmeelu fi ñuy nërmeelee dayob doomu aadama maanaam dignité ñi noo ne la journal l'observateur tuddee cellule d'isolement yi ci kaso yi ci réew mi ci gëstu bi mu ci xëy moom journal l'observateur mi ngi ñuy wax ne cellule d'isolement yi kaso la ci biir kaso bi ñaare détenu yi a dox ci règlement intérieur kaso bi lañu fay dugal ne jaar na fa Cheikh Mbacke gajaga jaar na fa giimar Marius Sagna jaar na fa ndéem si yàlla Abou Talib Samb di Ino jaar na fa am sax ku wax waa l'Observateur ne moom Ino wax nañu ne jafe-jafey rein gi ko faat mi ngi ko jëlee ci cellule d'isolement